Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. téeméer ñaar yu tomb ñata ci bismillah ñu door nak sunu émission di ci dalal sunu gan Hashtag News le gannaaw ab diir dellusiwaat nañ fas ko yene def 100 coach di ci dalal sëñ bi Dame Mbodj sëñ bi ñu ngi nuyu le ziar di la dalal di wax nit yaay sunu premier invité ci Hashtag News bu bess. wa loolu de dinaa ci kontaan bu baax baax euh, gannaaw bi ma la nuyoo yow Mamadou Fall euh, di journaliste bu xarañ di nuyu également ñi nga xam ñu ngi ñuy seet seetaan ci plateforme yi ak di ma dë di ñu déglu di kontaan ci ñëw fii parce que vraiment fii bu moo fi ñëwee toujours damay gis nii dina am jeexital toujours ci sama li may liggéey parce que nit ñi dañ koy déglu di ci di di di ko di ko topp donc soo ci ñëwee daf lay yokkute rek pour pour ki nga xam ne moom ñëw fii ci Vibe Radio donc man vraiment Hashtag News bokk na ci émission yi ma neex yoo xam ne maa ngi ko téléchargé ba léegi ci sama téléphone donc pour wan la ni daal vraiment bi nga ma ko waxee eh, teguma ci lenn dul damay ñëw parce que xam naa njariñ mi bi ma mën a andil et bi ma mën a andil réew mi aussi parce que fii moom li ñu wax yëpp mooy lu amal njariñ réew mi mhm. waaye xam nga ku dégg dàmbooj sa xel dafay dem Babacar ci wàllu jàng dinañ ci wax waaye duñ ko dooree actualité la ñu waxtaane moo di ni njiitu réew mi Macky Sall dafa jël kaddu ci kanamu ñëpp ñu gis ni lu toll ci ay fukk ak ñett ci ay étudiants yoo xamante ni ñu ngi tagga tembe ci Chine ndax coronavirus bi nga xamante dafa lëmbee àdduna mu ni Sénégal amuñu ay jumtuwaay wala bokk ay matuwaay noppeeguñu ñëw ngir jëli ñooñu léegi bu mu ko waxee ku ci nekk yéey ci yàbbi ci daam ñuy wax ci am nag ñoo xamante ni dañu ëmb ci ginnaaw ab collectif di wayjuru ndongo yi wayjuru ndongo yoo yile ñoom it janloo ak taskati xibaar yi ba ñu ñëwee wax nañ fa kàddu yu daw yaram am na wax yu am solo yoo xamante ne wax nañ ko laata ma lay bàyyi ngay réagir dañuy déglu keroog ci conférence de presse ba Djibi Sarr demoon na fa te tàllal na micro moo di Yoroba mi nga xamante moo yoroon kaddu collectifu wayjuru fukk ak ñetti ndong yi nga xamante ni ñoo dem ci Chine daam ñu déglu euh, porte parole bi daal di ñëwaat. ñun collectif bi sunuy doom yu tolloog fukk ak ñett ñu nekk dans la région de Wuhan te ab mbir daal di leen fay gàllankoor donc ña nga tey nit ñaa ngi dee ñu wét donc loolu moo tax vraiment ñëw tey pour wax ak bi wax la ne que li ñuy laaj vraiment président Macky Sall mooy que mu dimbali ñu dem jëli xale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 réew yëpp dañ leen fonk estimé leen Sénégal am na ay docteur am na ay militaires yu xarañ yeneen réew yi gënuñu surtout réew yi ñu gën a jege. yeneen réew yi gënuñu ñu surtout réew yi nga xamante ni moo ñu gën a jege di ki yoreen kàddu ko collectif bi dàmboot sa commentaire ci loolu. waa man de sama commentaire bi ma dégloo président de la république mu wax vraiment xol bu naqari laa ci jëlee. li ma gëm mooy effectivement fi mu daaneele nii mooy réew yi yi nga xam ñoo ngi wër Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi def yi pexe pour seen euh, doom yenn ci Chine ñu def euh, tout pour andi leen ci seen réew parce que nag réew amul dul sawaar réew fu ñu mën a nekk ci àdduna bi nga aar leen yiir leen léegi nag président de la république moom bu taxawee ni Sénégal amul moyen yu mu defee loolu matuwaay yi mu laaj amul ci réew mi te réew yu nu gën a ndóol na ci àdduna bi jël seen matuwaay jël seen i ressortissant yóbbu leen seen réew kooku gàcce la ci ñun d'abord ci déclaration bi rek ñëpp di ñu seetaan ci àdduna bi mais beneen bi man li ma gëm laay wax président de la république li mu wax nii ñun sénégalais yëpp dañoo war a taxaw ne ko du fi amee parce que moom mooy njiitu réew mi te njiitu réew waroo taxaw ni munuma hmm. kaddu ci njiitu réew ak lu coow la metti metti kon pour yow foofu erreur c'est sa famille chef de famille waxuma la chef d'état parce que moom chef d'état la mais chef de famille parce que chef d'état mooy famille bu rëy rek mhm. mais chef de famille ci boppam ci biir famille bi amul benn yoon boo war a taxaw sëngéem ne leen man munuma lu famille bi lu métti métti da nga naan leen mënaguma mais maa ngi ci ay pexe yu ma ko defee waaye mënuma ñëpp di la seetaan ci président de la république erreur de communication bi xaw ma ko defloo président Macky Sall mais erreur bu rëy rëy la boo xam da ko war a rectifier le plus rapidement possible parce que c'est une déclaration catastrophique la deuxième chose mais tey li ma gëm man mooy bu doon tey jii doomam lañ ni ma nga ca Chine bokk ca étudiant ya fay jànge mon président Macky Sall du waxé ni mu waxe man lool la gëm parce que tey jii gis nañ fi président de la République xam si ci immeuble Tamaro ne ma ngay lakk mu daal de dagg lam doon def def la République dem ba eh, doomam moom mii tamit li ma leer mooy suñu ko woon doomam ma nga Chine tey moom président Macky Sall du fanaan ci réew mi kon nag il faut ñu respecter sénégalais yi nee nag yéen dee leen man ma dund kooku dafa war a jeex ci réew mi te li muy andi tamit mooy su fekkoon ne suñu alalu réew pasar pasareewuñu ko ba nga xam ne bokk na sax ci sujet bi nga bëgg a andi ci kanam muy cour des comptes ñu jël suñu alalu nit ñu seen boos ko kon heure bi Sénégal doon na am infrastructure yu doy am matuwaay yu doy am plateau technique yu doy ba nga xam ne lu mel ni bu amee wala sax lu ko gën a garaaw Sénégal dina mën a taxaw jël matuwaay yu mu war a jël yëpp pour mën a aar sénégalais yi kon nag président Macky Sall déclaration bii mu def déclaration bu ruslu la et puis ñun dañu japp ni mom da ko rectifier rapidement parce que c'est une question de vie Qui boko ko dégloo ni muy waxee mi ngi lox baat bi mu wor mi ngi joy mu wor la ni ki mi ngi gis ni buñ gaawantu yobbu ay matuwaay yi wara a pour andi len koor yi dinañ ñëw du yag donc lool nak quand même on ne peut pas l'accepter nous demandons au chef de l'État quand même mu rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard na def déclaration wax ne ñun franchement dañuy xolaat suñu taxaway légui nak wax deug yalla Sénégal dana def lepp li mu def pour que ñooñu nga xam ña nga ca biir Chine té ñom dara jotu len actuellement au lieu ñu nan ambassadeur ba nga fay dem ak dem di leen seeti ñoom bëgguñu ku leen seeti liñ bëgg mooy ku leen dugal ci avion jël say matuwaay ñëw yóbbu leen quelque part isolé leen ci réew mi ba nga xam duñ mën a kenn parce ñoom sax feebaraguñ mais comme ñu nga jóge Chine mhm. mais dañ leen a war bu ñëwee mhm. isolé leen loolu man jàpp naa suñ ci defee pas-pas jox ko gëddaam mhm. jàpp naa ne lool mën naa nekk pas-pas def na ko ndax yónnee na leen mille dollars naam sax di nga wax xaalis bi ñoom soxlawuñ ko ndax fi mu ne nii li xew ci Chine jamono yi di dem ci réseaux sociaux yi mooy ni ñu leen di feddee maanaam li ñu leen mettre en quarantaine te sax ay xibaar bi moom mujjee jot ci internet bi laa ko laa ko laa ko déggee yi benn étudiant sénégalais boo xamante ni dafa nekk mu wane ni dañ leen mettre en quarantaine fii ba la euh, ay bés yu yoo xamante ni daal ci diggante bi lekk mën na faa ñàkk yeneen ak yeneen ak yeneen mën na fa ñàkk donc fi mu ne nii euh, l'heure est grave comme ni ñu koy waxee. l'heure est grave effectivement c'est-à-dire que beneen solution mënta am li réew yëpp di def ci àdduna bi loolu la Sénégal war a parce que yeneen réew yi ñu ngi jëli. non ñoom ñëpp ñu ngi jëli seen i doom donc man li ma jàpp mooy président Macky na dellu ginnaaw ci li mu wax président de la République du ni mënuma ok donc ñun loolu lañ jàpp mooy solution bi. Mhm. yeneen yi ni wax yëpp ay xeeti tappale la yoo xam ni wax dëgg yàlla tey jii bu doon dañ ni lu mat ñetti doomi ministre bokk na ca. wala doomu président de la république bokk na ca. kon nii ñu wax duñ ko waxee kon li ma leer mooy heure bii ñu ngi wut ay pexe pour mën a dem Chine pour mën leen a rapatrier and leen léegi nag ñun ñu bëgg euh, nekk fii golo di bay baabu di dunde loolu dafa war a jeex ci réew mi ma alalu réew mi waa réew mee ko moom doomi réew yi mun ñoo nekk ca bu mel noonu waa réew mi yëpp leen war a jëli ñu nekk naan ñun amuñu matawaay yeeg amuñu nuñ koy defee kooku ñun dañoo jàpp ne ñàkk a wekk sénégalais yi la kon li ñuy proposé ñun mooy que président de na dellu ginnaaw ci li mu wax jël matuwaay yi loué avion bu leen dem jëli ñu dem jël leen ñu ñëw am nañ médecin yu xarañ ñu ne ci réew mi ñu mettre leen en quarantaine defal leen suivi bu baax ba mu wóor leen ne dara dal leen ñu doog leen a bàyyi loolu sax dama la ci fekk si bu gaaw rek euh, effectivement am nañ am nañ médecin yu doy ndaxte euh, looloo waral sax ñu euh, mu tëtti laboratoire 15 pays CEDEAO nekk fi te amoon na ndam ci Ebola bañ a taxaw foofu nag sànq juñu ko rapport Cour des comptes de génn na coow bari na lool daal coow bari na waaw coow bari na lool ci rapport Cour des comptes d'abord man tappale bi ci am laay njëkk a dénoncé tappale bi mooy nañ ko nag daam non tappale bi ci am laa lay wax te rapport yi ba élection yi jàll loolu c'est important xam nga ñun il ñu respecter sénégalais yi quoi c'est-à-dire que tey rapport yi ba élection yi jàll ba président Macky Sall faluwaat ngay doog a génne naan aw moon effectif il faut ñu respecter non non dama moo ci nekk dañoo xam ne scandale yi comme nguuru président Macky Sall moom ñoo yanu pékke mi ci scandale yi biñ fi nekkee amul benn euh, benn semaine booy génn wala weer génn te yëgoo scandale bu am boo xam si moom moo ci teg concom moom président Macky Sall kon jàpp naa ne man wax dëgg yàlla suñu waxalee yàlla ñoom pex euh, euh, ñoom Cour des comptes dëgg yàlla man damaa rus ci lañ def man am naa fa sax wax dëgg yàlla benn promotionnaire ki ma bokkaloon nekk à l'université Gaston Berger de Saint-Louis moom ca ñoom la bokk ma nga Cour des comptes mais man bu ma daje woon ak moom it dinaa ne ko wax dëgg yàlla man gàcceel ngeen ñu parce que wax dëgg yàlla waru leen a jël ay rapport yoo xam ne dañ cee tuumaal ay euh, ay ministre ki ay DG et cetera ñu jël alalu réew mi au moment où sénégalais yi ñu ngi dee ndax amuñu lu ñu defee seen dialyse hôpitaux yi foo dem ñu dàq la parce que euh, nee nañ état bi du leen fay seen xaalis nga moom la ñu amel mais am luubal yu mel noonu nga nekk sénégalais nga bokk ci ku fay liggéey war ngaa taxaw fépp ne rapport bi day génn sama yoon nekkul ci élection waaye nag rapport yi ba élection yi jàll

fàtte nañ ko ñu bu ñu leen laajee ñu ni commission baa ngay xam nga il faut ñu respecter ñu ñun li ñu bëgg mooy président de la république président Macky Sall na respecté sénégalais yi xam nga ñu xaalisu réew mi ni jël di ko pasar pasaree nii loolu dafa war a dakk sénégalais yaa ngi bëgg a dee santé baa ngi ni ni kenn mënta faju ci réew mi école baa ngi nii taxaw ah, kenn mënta fayeeku ba nga xam ne jàngalekat ñu ngi grève eh, li leen ameel fayu ñu leen ko jaay leen doole ba fi ñu toll nii benn gel élève presque jàngeetul ci réew mi mais réew mu mel noonu ñu taxaw naan xaalis bu mel noon ñu ngi ko yàqate ci réew mi ñu war a jël dossier bi rapidement jox ko procureur de la république procureur convoqué ñim concerné mhm. ku ci war a am immunité parlementaire ñu dindi sa immunité képp koo xam ne euh, euh, laale nga ci ñu yóbbu la ci kanamu sénégalais yëpp dañ ko war a def sax en direct ci télévision ak rajo yi bu ko defee ñëpp ragal ko kenn dootu ko fi ñemee def hmm. mais loolu la wax def naa ay commission créé naa commission léegi commission bi tam ci waxtaan pour ñu seet ay pexe mais non man li ma jàpp mooy loolu du dara waaw euh, ñu rafet jot comme comme li ko non mënu moo njaxam xam nga olof dañ ne mhm. kun dumbin rey sa mhm. maam foo gis lu ñuul daw mhm. président Macky Sall dafay yàgg def ay commission te jurul dara sunu yàgg jël euh, concom teg ci ay rapport yoo xam dañ cee tuumaal ñu ànd ak moom mm. kon nag loolu su ko defee tey mënuñu léegi loolu lépp ma defoon fàtte leen ko léegi damay créer commission bu bees pour que lii bii yoon dina leer bii yoon dina leer boobu man laa gëm. waaw gëmoo ko. man gëm mais da nga ni euh, ku robin ku nobin. ku nobin rey italien ñu wax passo dopo passo pas à pas jóge ci bi dem ci bi gannaaw rapport yi naam sax ŋaaj ñëpp wax nañ ne nañ yéex na. Mm-hmm. yow mm-hmm. moom lañ bokk ñu maam daal ñu tuumaal leen leen waaw ñu tuumaal leen ci yow nga jàppee ko laax <laughs> commission ñëw xam nga ñeenti paa ñeenti jeego ngi nii mm-hmm. waxuma ñu rafet njort de mm-hmm. seetaan moo dàq ci ndaje mm-hmm. defe boo yëngoo keneen yëngoo keneen yëngoo nii naa commission bi dinañ def naam sax commission bi ñu bari dañ ko ŋàññ ndax nee nañ amu fi njëriñ commission pour lan non xoolal il faut xam nga man ay ay tardel ñu lay doon mais moom ñi ko def ay moom jàpp na ni moom président moom président daam na gannaaw rapport bi moom jàpp na ni commission moo gën. yow jàpp nga ni yow jàpp nga ni commission gënul. mais pour def lan. pour ñu def seen liggéey. ku ban liggéey ban. bi ngay xaar yow. non loolu ñoom def nañ ko pare ñoom waa Cour des comptes. def nañ ko mais moom. dem xam nga xam nañu def rapport. dañ lay ñëw ni la yow yow mii ci sa gestion bi la auditer ba pare gis nañ ci lii ci rëq-rëq ci ni nga yore yow li nga xam mooy alalu réew mi mhm. léegi nag ne la yow tontul nga tontu ñu jël li nga tontu ak ñoom li ñu bin ñu boole ko loolu la ñuy yóbbu jox ko procureur de la république léegi commission bu ñëwee lan lay def dama ne la il veut noyer le poisson président Macky Sall

encore une fois mon nguuram gi moy moy moy moo yanu pekemi mi li nga xam mom mo fi ciow ci scandale yep, yi mos a am ci réew mi ci nguuru Macky Sall le gëna a bare donc loolu ta continuer te mom bala muy jógee ci nguur gi loolu da ko wara a parce que man lima gëm moy su joggé ci nguur gi lepp dañ ko leeral. lepp dina leer. waaw ok fi ni sax ñi ngi jéem a bar fax ñu taxaw dialogue national. dialogue national bi ay naxaate la xam nga lu ma lay xamal. Euh, non dama lay expliquer. non non xam nga xam nga dama lay expliquer rek. non non dama lay expliquer dialogue national ne la voilà bruit. yow yaa waxal xam nga lu ñu ci bëgg. non bruit mooy nit ñi yëg nañ ko. xam nga président lu bari ngi ci génn. voilà ah? xam nga li ko ci intéressé xam nga lan la. Hmm. mooy na dajale ñëpp ñi nga xam ne secteurs yi doon coow yëpp ñu dajaloo ratatati ba doyal def seen i këyit bind buñ paree mu tege ko ne ni lii du bible du coran comme na mu defoon séenéer yi ba mu jógee ci élection yi ñu laaj ko ci affaire assises nationales yi ak la charte des assises nationales xam nga lu mu ca teg eh. dañu man dama signé woon ak des réserves alors que booba sénégalais yëpp dajaloo waxtaan ba ni lii moo war a génne ci jafe-jafe yi nekk mu ni man sama yoon newul ci loolu ngeen xalaat parce que loolu du bible du coran joxaat euh, Amadou Mahtar Mbow mu mu ne li mu wax li mu def def loo ko te moom vraiment man euh, je crois que euh, séenéer yi bi dinaa ci li ma arrangé ma def ko li ma arrangé naa ko du ma ko def donc président Macky Sall li ko intéresse ci dialogue national bi mooy créer les conditions d'apaiser la tension parce que tension métti na parce que Sénégal yëpp ngi ci mbedd mi. muy muy scandalu pétrole bi loolu lépp bëgg na ko étouffer. Euh, scandalu tamit euh, électricité bi c'est-à-dire lépp li nga xam ne mooy coow ci réew mi dafa bëgg ñu dem toog di ko waxtaane pour que bu ñu waxee ñu ne mais yéen tamit dal leen bu ko defee ña ngay waxtaane te la ñuy bu ñu paree ak lu ñu fa tënk. mais pexe la bu ñu waaw moom laa lay wax waaw moom laa lay wax loolu lay loolu dama ne la defu ko pour lu jëmale Sénégal kanam.

ñun dañoo participer même jox jox joxe nañ une participation symbolique ñun G20 pour wane ni ci lan bokk te dañ leen di dooleel te na xeex bi gën a wéy te li amoon ci pétrole bi nañ ko ci boole bu mu nekk électricité kese maanaam nañ boole lépp xeex bi gën a euh, gën a ful bu ko defee ñu xam ni réew mi mënuñu fee nekk am am nguur gu fi nekk di pasar pasaree sunu alal ba noppi ñëpp noppi loolu mënut a continuer donc ñun loolu mooy suñu position mais gis nga ñee nekk fee ca dialogue national ba mais dialogue national pourquoi dialogue national mais réew mi daa nekk ci réew mi li mu nekk mooy dañuy am gouvernement buy buy buy jiite réew mi nekk ci lu ko neex nit ñi dañoo war a taxaw nekk fipp askan wi nekk askan woo dañuy taxaw ne ko li ngay def nii du yoon waaye taxaw naa nañu waxtaane réew mi buñ paree pencoo ba ñuy pencoo président Macky Sall dara la ci dul doxal xam nga lu ma lay xamal xam moom fii la ñuy maa ngi koy wax devant tous les sénégalais gis nga lu ñu fa tënke d'abord nam ko organiser fexe na ba ñoo ñoom ñoo fa ëpp loolu maa ngi koy teel leeral xam nga lu ñu bëgg bu ñu demee ba ca biir ñu ne amuñu consensus déggoowun ku ne wax na li mu xalaat léegi nañ ko jébal président de la république pour mu àtte bu ko mu àtte ci côté xam nga lu ma lay xamal ña fa dem ñëpp ñi ci ay gudde man ña ma ci xam ñëpp woo naa leen sama grand yi xam ci bokk yooyu yëpp woo naa leen ne leen ah temps de laa gëm ne moom ngeen di def foofu ngeen nekk ci dialogue national bi maintenant muñ demee ba ca kanam dana leer mais li ma gëm mooy président de la république moom moo digge ne luñ fa déggoo ñoom dina ko doxal la ci kanam raw li bët man de gëmuma loolu man li ma gëm mooy day divertir sénégalais yi woo ñi nga xam ne ñoo gën a euh, ŋànk kuréel yi nga xam ñoo ne ci réew mi ñu toog di euh, waxtaan waxtaan wu dul jot dara bu ñu mhm. paree léegi moo def li ko neex moom daal di <laughs> daal di daal waxtaan wi jur dara Dame Mbodj ma fàttali yéen ci seen émission hashtag news bu bees di ci dalal Dame bu FEDER nekk ba tey bu g moom FEDER damay leeral foofu FEDER c'est vrai man maa doon coordonnateur FEDER mais yaa ngi ca waaw mais moom laa lay wax mais FEDER actuellement j'ai pas dit coordonnateur waaw d'accord d'accord waaw ñun FEDER dama lay expliquer laa lay leeral waaw ñun ña fa nekkoon yëpp à part ñetti syndicat parce que on était fukki syndicat la ñu woon ak ñett Mhm. fukki syndicat yëpp ñu ngi ci g ok d' accord bref Wow. waaw loolu pour Wow. leer rek waaw Wow. man voilà prévision bu am importance waaw man aussi li ma léegi ñun g Wow moo lëkkale kuréel yi ndaw yi amoon yëpp Wow 20 moo ko moo ko loolu loolu dinañ ci ñëw daam mais man aussi sama wax defe naa ni li ma wax it Wow li nga wax parce que dama ni Dame Wow waxuma coordinateur mais dama ni Wow Mbodj bu Wow yaa ngi biir fédère ba léegi bien que loolu dinañ ko leeral après n' est ce pas sànq ci sa biir développement wax nga bu fédère <laughs> waaw fédère moom amatul c'est-à-dire ñun bokk ñun ñun ñun ña ko sosoon waaw dañoo waxtaan suñu biir ni kuréel yi bari na nan booba dafa amoon idée am feder am grand cadre bu zum Omar Wali Zumaro mhm. am ISEC bu euh, Diawne ñun mhm. ñu ñëpp bëri ay cadre ñu waxtaan nag ne léegi nañ boole cadre yooyu yëpp ok waaw dinañ ci ñëwaat ko d'accord leer na leer na mhm. na te dina gën a leer sànq wax nga ko ci biir nee nga ñoo lànk du gis nga daam euh, ñoo lànk euh, ñëpp dañu ànd ak ñoom pas ñëpp ñu bëri ànd na ñoom ci li ñuy xeex moo di courant bi gannaaw ñi nga xamante ni ñoom mooy ñi gën a ñi gën a bakke ne ñi nga xamante ni maanaam daal seen ñi ngi ci donqaasi gi Kona bi yëg nga ko man yëg naa ko Babacar yëg ko ñun vibe yëg nañ ko parce que suñu facture yokuna ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais benn problème mo xaw jaaxal sénégalais yi aljuma bi gaay di jël di wacc mbedd yi daam waxuñu kenn bu mu dem wacc kan mo ñu sax ñun duñu bok ci ñi wacc parce que ku wàcc nga ñak wacc sa facture yokuna koku kooku moom quoi qu'on dise facture bi yok ñep xam nañ ko te bok na ñom ci liñuy xex mais laaj ñu ñom ci liñuy xex aljuma bi daam wa lolou mom wax deug yalla man d'accord nak sénégalais koy kaas parce que aljuma mom bu ñu xoolee nit ñi ñi ngi nek euh, vraiment ci seeni juma di julli di nekk seeni activité bu doon sax vraiment yenn réew yi la vraiment dañ naan àjjuma nañ teela wàcc bu ko defee nit ñi mën a waajal seen mhm. parce que en fait même su fekkee dañ ne Sénégal état laïque la mhm. dañu am au moins quatre vingt dix pour cent yu nekk ay musulmans mhm. te ñoom ñëpp àjjuma da na a kon nag man jàpp naa ne àjjuma du jour bu baax pour def manifestation yi man d'accord naa ci loolu am na sax démb rek ku ma ko wax ci benn entreprise ma demoon mun ma yéen ñu cee génne parce que su ngeen ko defee vendredi 16h. duñ mën a ñëw ñun 16h duñ mën a ñëw. parce que 16 presque bu ndee wàcc ñun 16h30 la ñuy wàcc bala ñoo ñëw ngeen départ seen marche donc ñun génn ngeen ci ñun liggéeykat hmm. mais li mu dëgg la. mu ne ma ñun vraiment li ñu bëgg mooy neel gars yi bu ñu ñoree ñun sénégalais yi dëgg mën nañoo war a jël samedi ñëpp ñëw taxaw ñi ñi liggéey wun génn sa ñu def mobilisation bu rëy wane ne am nañ temps te pare nañ pour jox ko Sénégal. ok donc ci ñëw lànk boobu dañ ciy des. souvent mhm. dañ lay gis ah gars yi bu ñu koy def ci live yeeg yooyu ñu gis daam chaque fois mu ngi kii am ñu ni sax daam peut-être buzz rek lay wut. bon bon man bu samay wax ah nit ñi ñoo koy wax parce que souvent xaw ma ndax peut-être ni ngay waxee la gars yi di bàyyi xel xaw ma ndax yow yaay dem uniquement pour def ko exprès ñëw feeñ ci biir ñoo lànk. merci xam nga man damay wax ni Euh, c'est pas pour me comparer à lui. mais mhm. dafa am benn journaliste bu ne ma. bon euh, yaw bu buñ la fekkee ci biir syndicaliste yi ñun yow lañ bëgg a jël. Hmm. ma ne ko yow yaay wax lu tax ngeen bëgg maa jël. parce que syndicaliste yi nag bari nañ mat nañ presque lu mat quarante syndicaliste hmm, hmm, yow ci mbir jàng mi laa wax rek ah waxuma yeneen secteurs yi mais ñun jàng mi rek mat nañ lu mat quarante syndicats man des fois dama doon géné sax suñu nekkee ñun ñëpp buñ dee def benn conférence de presse wala lu mu a doon journaliste ñëw ni man lañ bëgg a jël babbeeku ñëw si yow waaw babbeeku ñëw ci man loolu ko ñoom ñoo xam lan lañ gis ci man Hmm. ba buma ñëwé man ñu ni man lañ bëgg jël mais yalla xam na ni hmm. mosuma dem ben man ak manifestation bu am ci réew mi boo xam fekk na ma fi même buma amone activité bu may def damay dem participer lool mo am depuis ma ma ma ma man ma engagé wu hmm. dans dans ce que je suis en train de faire man même bima nek étudiant man dama mus bok ci manifestation lool la gëm damay netti ben jour ma nek euh, université Gaston Berger Saint-Louis ñëw Dakar né ci ben car Njaga Njaay toog ba ci àgg rek <clears throat> car bi euh, ñuy traversé avenue Cheikh Anta Diop bi am mel ne marche bu fa amoon ak étudiants yi rek ma daal di wàcc ci oto bi te pourtant Dakar laa jëmoon. ma daal di wàcc bokk ci marche bi. léegi benn waay ne ma léegi foo ma ne ko loolu naa ko def suba <laughs> incha allah donc man loolu laa gëm. Ah. léegi nag naa journaliste yi may jël nag ñoom la ñuy laaj loolu. lu tax ñu bëgg maa jël ñoom ñoo xam parce que journaliste yow xam nga leen. Hmm. kenn mënu leen a imposer lu ñu bëggul. kin bëgg jël kenn mënu la tee ñu jël ko man nag fu ma mënti nekk ci marché yi journaliste ñoo may fekk fi ma taxaw ñu ne ma dàmbooj dañu bëgg a def interview ak yow. Hmm. loolu yàlla dama ciy sant yàlla. ñoom la tax ñu gis ko nag ba may jël man. Hmm. mais wut wutuma ci buzz leneen man dama engagé rek pour sama réew. ok dafa engagé ngir réewam di dàmbooj bi nga xamante ni tey ji mooy ganu hashtag news bu bees euh, ma wax ko dàmbooj bu G20 ñuy waxtaanee actualité xam naa ci ñaareelu pàcc bi incha allah Babacar bu démé musique wala publicité ba noppi dinañ ci ñëwaat. hashtag news c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ñaar yu tomb ñett c'est l'émission euh, hashtag news bu bees seen xar Modou Fall di ci daal nel Damboj bu G20 sànq wax nga ko ci ñoo lànk bi lañu ñu desoon léegi man sama laaj mooy euh, yow euh, gi Marius xam nga bokku na ci ñi nga xamanteni fess nañ lool ci ñoo lànk bi mu démé kaso ba léegi seeti nga ko. man de jéem na parce que gi gi Maris liñ ko teg parce que man déjà j'en profite pour ma nuyu ko am na xaritam bu ko jegee boo xam ni dem na fa wax naa ko ne boo demee ne ko dàmbuj na ne mu ngi lay seet euh, gi Maris maa ngi moom bokk nañu xeex yu bëri. Euh, bi ci mujj mooy coowul PCCI bi. Mm-hmm. ak euh, les les vingt sept instituteurs yi nga xam ñoo nekk école Fann ak Dial Diop. Mm-hmm. def nañ ci conférence de presse. moom def nañ ci activité activités donc Guy Marius Sagna la. té man képp koo xam ne xeex pour sa réew moo la tax a jóg rek man bëgg naa euh, wëlërante ak yow donc wax dëgg yàlla fee mu nekk du place am te man wax naa ko bi ma rencontré waa ñoo lank nee naa leen luñ fi mën a wax 24 heures yuñ tegaat ci gi man man leen waxama ko sax dama ne leen euh, bis bu buñ bu ñu yokk rek ci ni li ñu tëj hmm. ma euh, gi mari sagne rek gàcce la ci ñun ñëpp xamul tax parce que hmm. fee mu nekk nekku fa ci coobareem ne demu fa ci mbiri boppam dafaa dem pour xeexal askan wi kon nag ñun mënuñu toog ci suñuy kër di lekk suñuy ginaar ak suñuy soxna seetaan ko ci prison bi ñun dañoo war a fippu

moom dañu koo faa dañ ko fa tek en et puis d'ailleurs man sax d'ailleurs dañoo wara changer appellation parce que palais palais lu lan moy palais palais c'est dans une monarchie qu'on parle de palais. palais mooy euh, palais non non dama mais oui lolu moo tax ñu war ko changer c'est-à-dire ñun liñ fi jëlee ci tubaab bi liñ fa war a dafa wari hmm. parce que ñun yoruñu une monarchie d'ailleurs moo ku fay fanaan rek da ngay defane monarque nga da ngay defa ne yaa moom sénégalais yi parce que non wa même bu fa fananul manam hmm. fa lay liggéeyee moom moo ko moom la japp moy bureau ay bureau fa lañ ne hmm. donc man lima japp moy palais bi sa tour wi lañ njëkk wara man man suma don suma don ma tay président de la république wala may digal assemblée nationale dañuy voter une loi bo xam dañ koy def musée dem tabaxé sunu euh, mm-hmm. maison du président de la république maison du président de la république ñu daal di fii ñu def ko musée pour ko rek mm-hmm. malheureusement de parce que comme mun ñu ko effacer ci suñu histoire mais wax dëgg yàlla man li ma gëm mooy dans une république nga tuddee euh, kër ga nga xam ne fa la ministre yay daje ak président fa liggéey nga tuddee ko palais comme en Angleterre mi nga xam ne dañ naan la Buckingham Palace parce que ñoom Buckingham Palace pourquoi parce que ñoom royaume lañ mais ñun duñu royaume président Macky Sall moomuñu moom du du du buur président de la république dañ koo fal pour benn diir pour mu nekk ci jafe-jafe askan wi kon man li ma jàpp mooy euh, ñun actuellement Guy Marius Sagna moom dañoo war a taxaw. ñu génne ko nu mu gën parce que deful lu tax ñu quoi bàyyi ci prison bi di ko jaay doole te ñam fa nekk ndoole yëpp ñu libéré leen loolu mënta continuer man loolu laa waxaa ñoolang maintenant pour l'affaire euh, euh, de de l'électricité mais vraiment président Macky Sall il faut mon xam ni réew mi nag ñëpp àndandoo nañ parce que président da ngay que sa waa réew parce que lii gisuma man ben sénégalais bu ci mais mënoo jiite sa waa réew réew mi yëpp nga bëgg jël décision kenn àndu ci mais nga taxaw te damay fàttali sénégalais yi ni émeute de l'électricité bi mais su Abdoulaye defoon lii Macky def kon émeute du am xam nga Abdoulaye lu mu def dane du yokk courant bi malgré ñu doon taal pneu guddi fépp ci Sénégal muy tàng mu ne moom yokkul courant bi mais problème courant la parce que booba baril bi dafa yokk te je rappelle baril bi demoon na ba cent vingt dollars booba actuellement baril bi ay ça tourne autour de cent dollars nekk fi di ratatati naan ay dañuy yokku dañuy yokk courant bi pourquoi Abdoulaye Wade yokk ko woon te Abdoulaye Wade baril bi egg na fa te yokkul courant bi kon nag il nee na moom temps yi dégg naa muy changé discours am naan non fii ak juin daañu xool duñ koy wàññee léegi moom il re il président doo rëy maanaam rëy sa sa askan ne la d'accord mais da ngay def ab discours ni man déglu naa leen def ngeen ay marche yéen ñëpp ne ngeen àndu leen ci ma yokk courant bi mais léegi danaa ko delloo fa mu nekkoon léegi nag yii conséquence lay mag yeeg yee maintenant te ñun li ñu gëm mooy su jëlee mesures yi mu war a jël daaneel institution yi amul njariñ ci réew mi ba xam ne ah, wàññi ministre mi parce que man xam naa ay ministre yu ne seen kër di fayeeku salaire te liggéeyuñ donc parce que ministres yi les gens ñu ngi naan quatre vingt neuf la ëpp na ko <laughs> y' a plus de quatre vingt y' a plus de cent ministres yoo xam ñu ngi seen kër yi ñuy fayeeku ay salaire parce que dañ dañoo nekk ay euh, nit ñoo xam ne am nañ ay nit am nañ influence président Macky Sall def ay ministres te ah, liggéeyaloon askan wi donc na wàññi tay gouvernement am train de vie de l' mu wàññi ko Euh, assemblée nationale bi ban ko yokk man ne woon naa d'accord ma ci parce que Sénégal a toll actuellement ci li mu député bi mu toll ñun ñu ñu ñu ñu xam ni tamit conseil économique et social bi amul njariñ pour réew mi donc ñun yii lañ bëgg mu màbbal ko. su ko màbbalee ay haut conseil de dialogue euh, euh, social ay ay euh, euh, dialogue des territoires ay HCCT et cetera ay kuréel yo xam si sénégalais bo boo légui def reportage ci mbéd bi nga laaj len luy seen xalaat ñun la xamuñu ñooñ donc yooyu dal bu ko dindee mhm. man japp naa ni courant bi man na bañ a yokk te am na yeneen yu yokku jaruñu ci dugg parce que temps bi dafa gàtt parce que mhm. ceeb diwlin lépp yokk na bien que sax nenañ ci grossiste le bref bon yooyu yokku na gaz it ñu ngi lépp ay yokk bu lim xoolal dama ni courant moom mooy premier facteur de production courant bu yoké lépp yok donc mm. président Macky Sall mom lolu mo ngouram buñu ñu fi di jéem justifier ñi nga togn ñi nga togn commerçant yi ensuite port bi actuellement taxe yan fa tek dafa jéggi dayo actuellement ñi andi conteneur ñëpp fi toll ni ci tëj lañ jëm parce que li ñi andee conteneur yëpp presque dafa passer du simple au double ku daan fay 1 million actuellement yaa ngi fay 1 million 800 cent kon daam daam c'est-à-dire bu ma déggé sa galan wax moy que ni donc réumi ci walu koppar ñu ngi ci. non ñu ngi wacc Sénégal contrairement ak les institutions financières yi di wax Sénégal mi ngi wacc sur tous les plans ñu ngi ci guuta actuellement lu ñu gëna dem ndóol day am te gis nga ma wax la ben affaire famine mi ngi ñew Sénégal ci kanam tour am na institution institutions yu ko wax <laughs> mais c'est la vérité xam nga <laughs> xam nga Sénégal aussi bo waxé xam nga ni mhm. dañuy tok di wax et cetera yow demal ci all bi actuellement all bi ci bopam ren nga xamné ne nawet bi baxul ci gox yu bari ndol dina fa am xiif dina fa am parce que duñu am lu ñu lekk loolu mooy dëgg moo tax fi ñu toll ni président Macky Sall ku koy dimbali bu mu ko toog naan ko yow yaa fi gën yaay président fi gën yow yaa li yow yaa lay ku koy ñooñu c'est des laudateurs laudateurs yi nag amuñu njariñ na déglu sénégalais yi na déglu askanam parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te mun ñu ko xar ñaar Sénégal nag da ngay toog nit ñëpp di toog di seetaan bu ñu demee nag ba di yëfi jéggi day woo ku nekk di doog a jóg fi mu toll nii la président Macky Sall ku koy wax dëgg na ne ko réew mi mi ngi ci guuta réew mi mi ngi ci jafe-jafe actuellement na soppi doxalin man pour man heure bi li mu waroon a njëkk a def mooy daaneel bi def Euh, daaneel gouvernement bi falaat gouvernement bu bees boo xam si day wàññi ministre yi daa di daaneel institution yi nga réew mi réduire le train de vie de l' état jël xaalis boobu tasaare ko ci secteur yi nga xam moo am jafe-jafe réew mi suqale ko waat mu wa bàyyi yokkute gu métti gi am ci réew mi pour que sénégalais yi mën a dund lii ku ko def loo leneen lu dul lii naan ko président bu leen faale jël jëlal saar yi teg ci mbedd mi

ngeen. waa tiit nañ mais xam nga lay wax ji sénégalais yi dañoo bëgg ñun jàngalekat yi ba ñu amalee suñu ak suñu élève léegi ñun nañ ko muñ te réew mi ñoom muñuñu xam nga loolu loolay problème bi xam nga sénégalais il faut ñu arrêté parce que man daje naa que yéen yéenay jàngal suñuy doom ma ne ko aha ñun dañuy sa kër bu weer dee bu la fayul da ngay ñu arrêté dan ñoo ameel sunu xaalis nan ñu fay président Macky Sall lim ñu ameel ci xaalis bu bëggee jàmm am nanu fay sunu xaalis donc sénégalais yi nan wàcc jàngalekat yi parce que jàngalekat yi jàngaluñ ay burkinabé jàngaluñ ay ay ay ay malien jàngalekat yi ay sénégalais lañu jangal té sénégalais nena nee nañ jàngalekat bari budé dee bari dañ baye jur ay dom parce que ñom en réalité seeni doom la ñuy jàngal ñun jàngaluñ ay burkinabé donc ñun fofu liñ bëgg wax fofu moy que ñun nous n'accepterons pas que ñu ñuy terroriser donc sunu grève bi ku bëgg mu dak da ngay wax président Macky Sall lam signé won ak ñun le 17 euh, euh, euh, février 2014 mu waccok lolu fa euh, euh, këyitu liggéeykat yi mu téye jàngalekat yi parce que li tax mu téye ko xam na ko këyit bu mu jox jàngalekat mooy daal ma lay firndeel ne ameel na la te dinaa la fay léegi nag këyit boobu di firndeel parce que tant que bi la këyit bi yow mënoo réclamer dara parce que këyit bi mooy firndeel ne ameel na la loolu moo tax mu téye këyitu jàngalekat yi bor bi mu téye ko bañ leen a fay nee na ñun buy calculer dette intérieure duñ ci boole mais la dette intérieure mënoo ci génne jàngalekat yi xamul tax parce que jàngalekat bi li nga li la kee liggéeyal dette intérieure mooy ñi liggéeyal état mais ki la kee tabaxal la école kee tabaxal la hôpital mais kooku euh, mook jàngalekat ñoo yem parce que jàngalekat bi tabaxal la loo gis mais dalaa tabaxal loo kenn gisul mooy la enseignant daf la defaral ay bopp defaral la ay sénégalais yoo mën a yor réew mi donc lam jàngale ma nga ca bopp xale ba service la mais c'est un service immatériel Il ko mënoo beaucoup l'hôpital mais hôpital ko parce que soo amul un yu un doo am des am euh, euh, médecin yu am journaliste yu a magistrat donc il faut nous comprendre ni nañu jox jàngalekat yi seen gëdd bu ñu bëggee réew mi jëm ca kanam. ok ñu jox leen seen gëdd bu ñu bëggee réew mi jëm ca mais c'est que man dama am benn problème. oui ak waa G20. Mhm. xam nga yi nga wax ni yëpp ni Macky Sall Macky ok bu nee Macky Sall ça veut dire que ni yéen da ngeen am tutelle ainsi de suite te it am na ak table boo xam ne ñu ngi fay toog. Mhm. mais yéen mënul yéen du ngeen fa toog. effectivement loolu mooy problème bi. voilà est-ce que kon yéen yow yaakaar nga ni seen waxuma duñ ko saafara de mais est-ce que yaakaar nga ni yéen seen mëbaa ita ñoom dinañ ci jot. yow dama lay fàttali rek. yaa ma invité fii <laughs> ñaari at ci ginnaaw ci émission bii hmm. ma wax fi ni booba négociation yaa ngi dem. Mhm. nga sànni ma xeer comme ni nga ma ko sànnee xeer ne ma yéen ña ngay woowaa G6. te kenn woowu leen te booba sax G6 lañ tuddoo booba booba inspecteurs yi bokkaguñ ca ren la ci inspecteurs yi bokk moo tax ñu tuddee G7 mais booba waa G6 la gouvernement bi woo booba doo ko fa ko fàttalikoo ngeen ne ma gouvernement bi yokk na vingt cinq mille ci indemnité de logement bi dambuj eh. loolu lu baax la eh. man la dañoo yéene bourse ah, te ñun bourse familiale ñun laajuñu ko eh. kon booba ba ñu génnee am na ministre bu ma woo ne ma dambuj yaa ngi yàq lañ digé sa gars yi parce que nañ xam nga sunu gars yi vingt cinq ba ñu génnee ñu wane leen télé bi ñoom ñëpp taxaw di reetaan kontaan ca guddi ga ma ma ni sama nañ def point de presse bi ñu point de presse ci déclaration ni léegi dañuy dem waxtaan ak base bi pour xool ñuy defee pexe ba gudd gàtt ci grève parce que palais grève donc pour te dire que ya euh, li xew Angleterre rek lay wax. Angleterre Angleterre am li ñuy le gouvernement officiel ak le gouvernement parallèle ñu koy tuddee en anglais le shadow cabinet. ñun gouvernement parallèle boobu Angleterre am système boobu la ñuy dawal ñun G20. c'est-à-dire aujourd'hui gouvernement bi négocie avec nous sans négocier avec nous c'est-à-dire qu'on n'est pas autour de la table de négociation mais suñuy position day day day day day day impacté sur ce qui se fait autour de la table de négociation c'est-à-dire aujourd'hui G7 ñi ngi may dégg ñemoo ñoo lever mon d'ordre bi kenn ñemoo levé, lever buñ ko bëgg nañ ko levé suba kon pour la ni gouvernement bi xam nga démb am na ministre de la république bu wax bu ancien ministre Kalidou Diallo boo xam ci wax na ci presse bi j'aurais bien aimé sax ngeen invité ko parce que moom il est il est courageux parce qu'il prend ses responsabilités. Hmm. te d'ailleurs nga réew secteur yi am coow ña ko mosoon a gérer dina war a laaj seen xalaat moom nekkoon na ministre de l'éducation bu yàgg ci jamono Abdoulaye mais biñ ko laajee benn journal laaj na ko démb mu jël ay responsabilités dem daan ne man de wax dëgg yàlla je ne comprends pas ce que le gouvernement est en train de faire moom li mu gëm mooy problème bii. ci moom expérience bi mu am parce que c'est un ancien syndicaliste il a été secrétaire général du Sud-Est. Hmm, hmm, mu ne moom gëm na ni. su gouvernement bëggee génn ci guute gi mu nekk nii day wax ak G20 su waxul ak du ci génn kon nag ñun jàpp nañ ni mu wax ak ñun ak ñàkk a wax ak ñun du tee suñuy position ñëpp a ngi koy dégg ñoom gouvernement bi ñu ngi koy dégg te ñi ngi wax ak sax ñun en réalité ci suuf parce que fu ñu defee man du def ben plan d'action bo am ci duñ ma wo ñom les renseignements généraux au niveau de la présidence pour xol la li wax fan la fan la ko tek ak fan la bëgg jëm ak lan moy sama plan d'action ma wax leen ko ñu ngi ñuy déglu maanaam mais tooguñ ci autour de la table maintenant ñom c'est leur responsabilité parce que ñom lañu japp moy néna ñoy G7 lañu waxal duñ wax G20 mais comme ni ko euh, miss euh, bi wax dem waxee mais et puis même premier ministre ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne néna leen wax leen ak G20 parce que euh, ci ben émission la ko def momit fi ci Dakar dané len mais euh, yéen pourquoi do ngeen wax GV wax len ak waa GV parce que lool moy indi jàmm donc alors loi yi nga xam moom moo tënk réew mi dañ ne dañoo war wax ak ñun convention internationale la C87 et la C98 tamit dafa wax ni euh, secteur bu nek bu fekkente ne dañuy waxtaan ku fa am syndicat légalement conseillé dañu wara a donc Sénégal mi ngi jalgati def lu ko neex. Hmm. te même ci élection yi mu ko jox yi mu ko teg nee naa la élection yoyu résultat définitif yi génn gul. C'est des résultats provisoires encore une fois. le mhm. gouvernement bu sérieux de basé des résultats provisoires dañoo que ministre euh, du travail na génn arrêté bi wane ni G7 bii muy waxal ñoom ñoo représentatif nan ñu woon ben kayit bu koy wane xam sénégalais ñoo waroon atte man dama ko wax ci benn émission ma ànd ba ma juriste bi ma ko waxee daanaka un scandale comment un état peut valider des élections comme xam des résultats provisoires C'est des résultats provisoires parce que a un recours recours même qui table ci table président tribunal. Euh, cour d'appel mais moom mënu ko àtte parce que nee arrêté bi organiser élection ça, sax la wax ne donc xam nga élection yooyu baaxul waaw léegi nag ñun leen nañ l'élection, élection yi l'élection, nañ ko nañ élection mais li tax ñu ragal xam nañ parce que mhm. sur le terrain sur le terrain contrairement à ce que beaucoup de Sénégalais ne savent pas mais mhm. sur le terrain le discours du G20 moom la enseignant yi gën a accepter le discours du waaw mais loolu nga wax ni yëpp ah bi nga wax yëpp c'est très logique et puis leer na ci bopp auditeurs yi nga xam ñu ngi déglu nag loolu daam warul mën a may saa su ne ngay joxar bi baaraam ci waa G7 naan dañ leen woo dañ leen jéem a corrompre dañ leen non mais quand même. loolu damay jox ay firnde xam nga man. amu ci lenn ñoom kay waaw non loolu est est est a expliquer. Euh, est may na la ngay xarab sa yeneen i doom moromu syndicaliste. waaw dama lay wax est-ce que éthique maye na nga nekk syndicaliste taxaw ne gouvernement doo recevoir ñee ñun rek ngay recevoir est-ce que éthique maye na ko cest à ab syndicaliste gis naa sax syndicaliste bu dem ci télé naan leen noo yéen wartu leen a jox parole waa G20. ndeysaan tiit nañ quoi xam nga loolu garaaw la xam nga loolu ba journaliste ni ko ah bon mm. daal da ngay mel ni ñun Macky Sall la ñu war buñ dee buñ méngalee Macky Sall la ñu war di jox euh, parole mais buñ jox parole opposition bi mais waxu caaxaan yooyu may wax lan journaliste yi ci yoonam kay moom ñaari parti ku nekk da nga ñëw wax li a xalaat mm, mm, maintenant aujourd'hui dama la wax la G g li ma leen tuumaal lu ni weng la ñoom seen bopp ñoom ñoo ñoom ñoo dem ànd ak nguur gi pour di wut ay pexe pour ñu arrêter grève bi li ñu def mooy euh, aju ajuma jële ñu génn dañoo dem dajaloo ci benn hôtel fii ci dakaar daal di dem toog ñoom a gouvernement gouvernement bi leen jéem a euh, may fu mu sukkandiku pour lever mot d'ordre daan ni leen léegi yéen yéen g danaa leen jox ay terrain léegi bu ko defee wala ngeen xool <laughs> et cetera <laughs> voilà yéen daal di daan lim bu ñàkk fayda alors que ñun loolu lañ diggee état bi xam lu ñu waxante ak état bi jàngalekat bu ne am parcelle non viabilisée 97 000 jàngalekat lañ jàngal ñoom la ñu waroon défendre devant quatre-vingt-sept mille jàngalekat lañ jàngalekat bu ne nañ dagg benn benn pàkk jox ko ko mu wuti xaalis tabax fa këram parce que àll baa ngi nii ñu koy jox ay immigré àll baa ngi nii ñu koy jox ay magistrat di ko jox ay ay député ñoo xam ñoo ëpp doole foofu jàngalekat ñoom mën a ñoo dem jënd mais ñu nekk quatre-vingt-dix-sept mille jàngalekat nangun ñoo jox ay daggal ci suuf si mel ni ñun dëkk dañoo dëkkul ci réew mi loolu laa wax ne ñoom bañ demee mhm. rafet njort ni ëllëg daje

la G20 démarré grève bi semaine ba ca topp waa G7 si ñu ci grève bi noonu la demee léegi bi ñu ko defee ñun 14 boobu dañoo def ay assemblée générale ci réew mi yëpp jàngalekat yi ñu yéen ak waa G7 ànd leen comme ñoom jàngalekat yi dañoo bëgg ñun te jàngalekat yi nag ñoo yore seen cëggal guy ñoom ñoo yore doole ji ñun ñii ñëpp ku ci nekk ce ko fi nga yore maanaam ñi la ko signal ay jàngalekat la ñooy fay ñooy tax nga fay sa siège man bu du ma mën a fay a fay sama secrétaire mhm. du ma mën a du am carburant bu ma demee di di mhm. nag loolu loolu jàngalekat kon yore kon ñoom ñoo yore la souveraineté mhm. jàngalekat yooyu nag ki bokk ci man ak ki bokk G7 ak ki bokk feneen ñoom ñoo ne nañ boole doole ji pour ñu ànd ñun biñ ñu ko waxee ñu def fésal ko biñ ko fésalee mais sunu gaa yooyu tudde seen bopp G7 bañ léegi nag comme ñoom ñoo bañ ñun jàpp nañ ne bu ñu àndul ñoom ñoo ko yàq mais ñun dama koy waxaat fii ci sa micro que ñun waa g jot naa mandat ci plénière u secteur généraux yi les 27 secteurs généraux pour que bu ma waa G7 woowee pour ñu toog waxtaan pour lënkale doole ñun d' accord ñoom woo leen fii ndax daañu wax loolu ok léegi laaj bu mujj ah waaw wala déet rek quoi euh, mënees nañu rafet njort ba tey ren ni at bi incha allah dana jaar ci yoon ci wàllu njàng waaw wala non question bay dëgër. maanaam man man man li ma jàpp mooy. Euh, du yomb du yomb. du yomb daal mooy sa laaj yomb. Dambut, Vibe Radio mi ngi lay jaajëfal. maa ngi leen sant leen gërëm di kontaan ci ñëw ci Vibe Radio. acca <laughs> mu doon seen émission hashtag news bu bees Babacar moo nekkoon ci xarala gi di fàttali rek. ayu bees bi ñu dëkkmal incha allah dinañ fi ñëwaat mu doon Damboj euh, gannaaw Vibe Radio point sen application bi tuuti teew nañ. wéy leen daal ñun ci Facebook Twitter Instagram sunu chaîne YouTube Mamadou Fall moo doon àddu ngeen di teewlu. hashtag news c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe.